dama ko lu jël ay am mu toog a ñëw taxa sama loxo sama loxo ah dama ko sax dégg waaye bi no buzz bi la yàqu de fi na maa ngi fay ba mel ni sonnal bi sama fecc bi fay naa fi ne dama ko waaw yow kii ma dàqee ko waaw yow noo ma ko dàqee. fekk bi léegi fekk na ko 2005. ba mu koy fekk 2005 kon boobu xam naa ne boobu fekk na maa ngi sama biir yaay kon léegi ñaata at la am. kon léegi nag fekk maalaw yi waajal na mbal bii benn doo waxal leneen bii bii bii bii léegi rek loo may sonn na nii ah ah ah fu ko léegi jëlee fu léegi jëlee fekk ah. beral ko ma ñoo jox ko keneen Aïda Samb kii kan la ñoo lu jël nii Aïda Samb moo tijji boutique lu xew eh coow li coow la ci digg digg mooy yaa may daa ne yaa may daa ne waaw yow Tubaarikàlla macha Allah ni nga toog rek nga jëfee dox nànk wax nànk réew mi li muy yaatu yëpp tubaarikàlla bu way wi neexee yow la waaye bu tekki gi jotee yow la tubaarikàlla macha allah sama cet ak sama cetu moroom da ngaa woote li nga way ñëpp xam nañ ko gis nañ ko barki demoo Njaay nga génne sa clip bu bees sàkk teg ko xale yi di ko salaan si boo wootee damay dikk maa ngi ci clip bi tegagun ma waaye tubaarikàlla macha allah ay na sàmm Sadio yàgg na jaar ñu toog di waxtaan boobu du tey boobu dama daan romb du ma dégg xale bu dama tikke nga judd fi nga juddoo màggee ni nga màggee jëfe ñi nga jëfee nawoo ci réew mi duma ndeel ba mel ni garab yoo saa mori mori baa bii bëgg na bii bii langa buri ñor na ceker ceker too cek ceker daa wari gu dara jotu la ci sama waa ji boutique bii nga ubbi nii fat fos la tàngaay jeex na ci réew mi kilim yi dañuy allumé waaye day jàpp bool tubaari kal la say bool jugawul fii dégg na attaché bosteen ci bi ngay jëfanteeg nit ñi lu baax xam nga ne Pendo mi wekkee këram andi ko wekki engagé andi ko andi bigi tubaari kàlla ak fi réew mi toll eh réew mi dégg naa Jomaa yow lay wër nee na kullu bool buy duggal ci réew si ñëwoo du ñëw wax ji fii la yem nag fii laa ko waxee ba mu jox ndaw ci yoota sa may ñëwati ci mbedd bindal kenn mbay mbay li ñu wax rek lañu ko bindal. yéen bu ñu. darah darah darah